monsieur le ministre de l'intérieur tey da di suru vérité boo xamante ni askan war nañu xam parce que ñëpp dañuy jàpp ni Khalifa Sall ak Karim ñoo tax ñu indi lii non non non parce que bu dee cas de Karim Wade li nga xamante ni maanaam ci article trente bi boo xoolee depuis le vingt août 2021 ci code électoral bi Karim Wade bind mënoon naa binduwaat parce que loolu la code électoral bi wax kon lii engagé wul Karim Wade dafay ñëw rek confirmer li nga xamante ni tey mooy dëgg-dëgg bi nga xamante ni askan wi jox nañ ko Karim ak li nga xamante ni mooy yoon te Karim Wade aussi monsieur le ministre yàlla moo dogal tey nga ñëwaat ndax biñ koy condamné ci kër yi yow yaa fa nekkoon bi ñu condamné Khalifa Sall yaa nekkoon SPC maanaam agence de l'État bi ñuy tëj xali euh, euh, euh, Ousmane Sonko te yaa nekk ministre de l'Intérieur ñett yooyu nag conséquence la daje la wala moo dogal loolu loolu tamit nañ ci aussi vraiment ñu xam ni askan wi maanaam mun ñu ko yor ci nguur te waxtaan amul mun ñu yor nguur te jàmm amul kon jàmm boobu noonu man moom laay woo ñëpp monsieur ministre lii nga xamante ne mooy session extraordinaire bi ñun yoon moo ñu ko sant ci article 63 ci constitution bi article mooy règlement intérieur assemblée nationale kon jàpp naa ne ñun war nañ ko def mais li nga xamante moom laa si def rek mooy fast track nga xam ko ndax boo jógee si code euh, règlement intérieur bi dafa wax ni bu defee commission ba plénière a mel monsieur le ministre boo xoolee ñun ñi nga xam ñoo nekkoon coalition Wallu ak Yewwi bi ma àndee ak Ousmane Sonko campagne sama oto waxoon na ni bu ñu amee majorité daan modifier code électoral article 28 ak 29 yaakaar naa ñun ñi nga xamante ne bi ñu defee séminaire coalition Wallu ak Yewwi proposé woon nañ ko ba déposé woon ko fii nga xamante ni mooy ci bureau assemblée nationale ngir ñu modifier li nga xamante ni moo ñaar article yi kon jàpp naan tey bu ñu waxtaanee ñun dialogue ba d'accord si loolu bu ñu ko indilee te ñun ñu gëm suñu bopp sàmm suñu kàddu ingir intérieur mi kese ñun ñëpp war nañ ko commencé wote ko parce que ñun avant ngeen di ko indi d' accord nañ suñu pour ñu modifier loolu parce que ni nit ku nekk yàlla rek mool tiim ëllëg yàlla rek mooy dogal kan mooy nekk président de la république ñun xamuñ si dara mais li am mooy depuis 92 ba léegi amul benn code boo xamante ni indi nañ ko fi mu am consensus kon jàpp naa ne après élection 2024 yi mën nañu loo xamante ni dañuy am benn code boo xam ne code consensus lay doon comme code Kéba Mbaye boo xam ne askan wi yëpp ak acteur politique yi ak société yëpp nekk si benn